weer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xëy dikk. weer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xëy dikk. weer wa feeñ na ni fang. safar demoo fi xëy dikk. weeru bamba la kon kuy muurit jugal jël bu njëkk. jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk. avion otoraay car charrette ñu ngay daw di dikk. ndax 18 safar. waa ji ko tardé ki jar rëkk. ki jar rëkk ki jar rëkk ki jar rëkk. nag gëléem ba ganaar ay xatee ki baa ñu far lakk. ñu far lakk ñu far lakk ñu far lakk. waaw yow man dama laa xaar nu ngeen defar seen xew ba nag. yee Ndiaye xew wa na. ah. teraanga ya bari na. lekk naan ya bari na wax dëgg yàlla. fekke yow rek yaa ko manqué man da ñàkk seen xew yi nag maa daan neexal de. Ah, waaw yéen xam yaa xam suñu diggante maa yow ci xew ci xew lañ ah, <laughs> tey bés bu neex tey li li booy xale yi naan sawre. dañ koy sawre. Ah, waaw waaw dem ci xew te doo yóbbu dara. tey booy demit bu neekul xam nga fii laa koy fajar. daal di wër dëkk bi. Mhm. man daal maay wër wër wër ba boori yor-yor gi tisbaar noonu mhm. xam nga kër gi ci ginnaaw ah, bo mën a ba ñaaral angle ba xam na am na étage bu nekk fofu ah kër gu bes gi may ma dajante xalé ba ma ak borom kër ga ndekete xamante nañ man ak mom ndeysaan ma wëra wëra wër ba son naka la né gees yem ci mom rek jox ko loxo mu ne sama nijaay gi ñu jamm sant foo rek mu ne ma dëkk fi légui ay way fo jëm ni mu ne ma damay uti big bull moy xajju ngann yoy di ki man ko xajj ci kër kii han ah, man damay garder mu ne ma da ngay garder man ko man armée Sénégal la Ah, def naa lu ne. xamu la mu ne ma ah ma ne ko waaw mun ne ma jël naa la. lan ci la ma jëlee juróom-benn fukki la may fay. lan ni fukk ni la may fay. ma tàggatoo ak moom ne ko maa ngi dem mën a ñëw lu yëkkati lii jox ma. cent mille francs tekki nañ lan. lii ñaar fukki junni la yëkkati jox ma. ñaar fukki junni. ma ne ko bàyyil ba weer dee nga fay mu ne ma li jotewul dara dara dara ak ci li nga xamante ni moom laa lay war a fay. waa nijaay nijaay lii bari na de. ak ah, lool. waaye yow gone gii baax na de. xam nga lu ne ba ma koy jox may jooy mun na ko bàyyi ma fa mbaarangooñ ni ko yi may kii. ah de loolu moom sañoo ko nijaay lii boo ko ñëwoon dëkk bi tax. boo ko ñëwoon indi woo <laughs> nii daal laa ko xam nga eh, lettre ba doon bind fee sunu borom. waaw ah wax ma ko ma dul ko fii lettre ba xam naa ni yàlla dégg na ko te it xam na ni mu demee. bari umb ko. dara umb ko. boo ne jaar xam nga ni yàlla moo xam nga yow lu yow xam nga man lu dama ko faté wu. ah man fàtte yow lettre ba dem na kon. mo man de na la leer ne dina ko bind lettre. dégg ko. ni ja dina ko bind lettre. wa d'accord accord yow dama la waxon ni yobul nga ni do yob ya waxon fi do yob nijaay moom doo dem. waaw waaw daa xaba. Ah, dem bu amu ñew may dem. wa dit jox ma sama walu bopp. walu ba lu ñuy séddoo dafay ni ja xaliss bu bari bi do ma ci jox. car ma sha allah dajul sa gémmiñ gi ban xaalis a fi bari lii dépasse kër gi la. nijaay guddil naa la bëccëgal naa la ci kër gi man naaj ku yor yorool naa la. li jënd naa ko dépasse ba taay. Euh, dalaa war bu fi toggee li nga ciy lekk duma ko ci lekk. waaw ba nijaay doo ma jox ci xaalis la boo tibbee ñu yaakaar da ngay saraxe sa loxo bee gën a gaaw puso machine lekk rek ngay def mu naan li jënd naa dépasse. mbaa xam nga ne sama xol taamu ci. moo yow de xam nga bii xola bii. bu ma ñëwee ci boo yegsee ci biir na bi xam naa ne enveloppe bi sama loxo lay teg waaw ba léegi nag gis nga yow gi jaw ma jaga lé yàlla yàlla def sutura dañ koy séddoo nag yow kii moo jaga tux fatu jaagi batu boo suwaasir wakaana aqan moom laa suwaas

can bii maa koy check di ko check lage waaw warga bii day log loge may fural mi bañ a fuur nigga fekk fekk oh shit eh. yee ana ana jama ana sanday <laughs> na sedd waay ah waaye muy muy gën a tàng naa mën a sedd ana sanday laa wax mais gis ma ko de donc soo doo xool fii ba xam waaye la gën a tàng de ñu da ngay métti métti ba nuy métti yow ñu ngi ëpp

amuro bañ jox yalla gisul kon la lepp waxon amna sunu borom jonne ci lettre lolou mom bu soobee yalla deug ma nga ne enveloppe la dama ni enveloppe bañu ñu sunu borom lettre sunu borom jël na ko bii defoon ñaar fukk junni ñima ma hmm. mi ngi ni sans poche yo fa tol ni yow booy doo teg demé ni lan mo wara wote gi wa mais boy ñu demé non su la woowee dama la wara wo wala waaw doo sama kepp nga wax ma li may wax ma damay dem. mooy yow tey métti nga de ah dama lay doyajul leen dama am la diggoon war la koo bàddil mooy loolu moo tax ma woo la pour ñëw danga war sourire am joie de vivre Malick yow man lii namu naa ko yee sa bëñ rafet na what's up naan ma ko. Hello? Um, salir, Mm. Hey. Eh. Ouf. mais dewal daal lii leer saa la ni gis nga man lu ma la wax dama koy def su ma amoon milliard dama koy jox gëm naa la yaay sama shori yaay sama leeri man I love you girl <laughs> you are my head kamu yi namoon naa ko yii nii ah yi dama ko namoon ni ya ma gën a xam man mënuma la woon a mere laal nga ah xam nga yow laa koy tuddee nawet dégg nga lii yaa tey may nga ma ko lay xaw na ñuy def waaw comme que jot naa ci li ma bëggoon waaw macha allah léegi rek ñëw ñu ànd set toog ràcc ne ko ne di bëgg man bëgguma xam la moo tax ma bëgg nga firndeel ma ne danga concevoir chaque jour ngeen bu amee benn détail bu ndaw. soog non détail bu ndaw bi moom yaa ko andi woon. parce que xam nga naa ma ay gént laa ay kenn xamul noonu ah. dig ma li may dig war ma koo jox ma ñëw nga naa ma ay gént la. waaw dégg nga ah, loolu waruma waroon tegal lu ne. mais gént gi mooy sama mooy sama mooy sama kiiraay gént gee ma sonal mais gént gi bëggoon naa mu àgg. mais affaire dañ koo dagg xaw ma nu ku ko dagg nag waaye am naa ngoon problème après. mais ça fait l'occasion bàyyi ko loolu mu jàll loolu na jàll yaa ma gën a xam. nga may wax nga bañ ma déglu naa la ci sa dóor <laughs> léegi lu ñu ci def. Eh, am na ñu def. Hmm. nañ dugg gàlle ma laalal la ndox nga def baaf. Hmm. suñu pare ma tegal la caan bi yaa ma gën a noo eh eh bàyyi sa yi ngay def. naag eh, xam nga naxu ma la <laughs> ah ani gaaw gën a xam. ñu def sa gaale yi nañ dem allah dox nga baax. yow mais. topp ma ñu dem. mool mool. damm naa sa yaay si papa ah. même sarab geek ni nga toppi turi tudd kañaak yooyu yëpp wax naa ko ci. lépp man xam wax naa ko ci lépp. man nag li ngay jaabante faru kër na ma. bala ngeer ni mu man la ci bañ a xeele ci jarge xorompol ak yow <laughs> ñëw nga ah, ñëw naa waaw foo jëmoon ni ah, ah man da dama doon séntu waale rek ah. <laughs> waaw ñëw naa léegi nag alhamdulilah jox na la jox na ma. ah ren moom. sunu màggal sunu màggal dina neex fexeel nag ba ren bokkuma ak yow daal nar ñuy dem ca dal ba toog yaa ngi dégg bu ma xale yu jigéen yi nekk Dakar rombé naan alaaji as naan nga kafe wala def nga lii ngay commencé mer te man nabante yóbbu ma fa man gëma dëgg borom daaru rek laa gëm nabante yóbbu ma foofu ren nag nangut foo dal man man ma dal fu ma neex. bu dee sa salaire bi ngay waaj moo la tax a rakkaaju fi mu ne bay tudd ay xale jigéen yu jógee Dakar yow bu lay boo da nga koy dégg rek say nopp koy dégg waaye doo ko teg Hmm. bu ñu weesoo loolu nijaay alal ji borom bi ma koy jox dafa am ay kàddu yu mu teg ci samay loxo ma am ay tag kàddu yu ma teg ci ay loxo nijaay bëgguma rusloo doomu aadama waaye bëgguma kenn ku ma jam léegi ku la ku la jam yow ma ne kàddu la ma wax daal ma tontu ko kàddu ah, góor yow waa léegi ana esclave bi ah. léegi où est l'esclave c'est moi ou toi ou elle kan la c'est xaalis dañ ana esclave waaw ma nijaay xaalis dañ yow nee ko am naa salaire juróomeen fukki junni xanaa waxu ko lool man ah? ko ay salaire kii barki dem rek laa dem kii mu jëma fukki junni man li ko leb loolu laay lijjël ah sab salaire sama yoon waaye téye xonta amal ah, ngoru rek ngir yàlla ak yonent bi nijaay soo jotee xaalis na nga ko teg ci sama loxo loolu biti la fanaan sàngoom malal ma weex sa ñaari loxo damaa bëgg ngir yàlla ak yonent bi nga dimbali ma ci alalu jàmbur ji nijaay bu ma ci jooy te bu ma ci am gàcce te bu ma ko wax ma lu ma mënta tontu xam nga man kenn du ma wax lu ma mënta tontu. Oh. li génn ci fuddan nga fuddanu bàyyil bu ñuy dem nga topp ñii ñu ñuulal say loxo yi boo ko nuyu sama sëriñ laa la yóbbu pour pour pour mu kii la. li ci des dinaa ko. xalaatu soxlawu ma ci dara xaalis bi. waaw juróomi dërëm soxlawu ma ko ci. baax na baax na dinaa ko jël nag yóbbu ko ci jëwriñu daara daara yi mu jëwriñ ji man rek lay xaar. waaw ba tey téeméer junni dinaa ko jox. waaw ba tey mu def ci lim ci war def lépp. def ci lu la neex su ko ci defee lim ci war su ma demee sëñ bi si. weer wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy dikk. weer wa feeñ na ni fang wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy weeru bamba la kon kuy muurit jugal jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk avion otoraay car ñu ngay daw di dikk ndax 18 safar waa ji ko tardee rëkk ki rëkk ki jar rëkk gën a bég gis nga jàmbaar yëpp Baye Fall yaa ngi bàyyi xel maa la ndax café gi ñu leen a jox ñu ci xéwlu yokkute rek a xamal leen la mbirum sëriñ Bamba bis boo ko lebalee bëccëg boo nga lebal ko guddi mu fay la bëccëg boo ko lebalee bëccëg mu fay la guddi te li ma la safar sëriñ Bamba gi ku ko safoo mu safool ndax Bamba ji yëg la kun ko yëgalu mënoo ko yëg barke Maam Modou Moustapha suba ko day meere la jëm mën naa doon sax ñaari si woo ba ñetti si woo ñu seet ko ak sa ak sa bu suba yàlla dina la ñuy teg ñaari yu mag la ñuy teg weer wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy dikk weer wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy dikk weer wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy dikk weeru bamba la kon kuy muurit jugal jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk avion autorail car ñu ngay daw di ndax 18 safar waa ji ko tàddee rëkk ki rëkk ooy koñ bi ñoom dañoo réew bàyyi ba ngay përbët ñuy romb di sànni ay xeer mooy bàyyi leen rek man seen moroomu bàyyi sax. salaamaaleykum. ah waaw kay. deh waay dana ma joona yaa ngi da koy xam nga damaa gis oto bi ana oto bi non xam nga koñ bi dafa bari suuf <laughs> waaw waaw doo mën a doo mën a dugg doo mën a dugg dinaa fay dem di ko xool léeg-léeg waaw mais bul fa yàgg na day yii du fa yàgg donc kay damay bu may def damay daw su ma ñëw damay daw waaw mbaa yaa ngi góorgóorlu ah maa ngi sant maa <laughs> ngi sant bàyyi koy noo ko bëgg rek ak noo ko xalaat rek moom noonu loolu <laughs> lañ koy defee bu soobee yàlla ndax fii nga ma jële mm-hmm. indi ma fii yàlla lay fay ak euh, maanaam ñi ma yaakaaroon yëpp nga nga yombalal ma ko daal yàllaa la booleeg man jot sama bataaxal jàppale na ma mbaa yaa ngi wàcc màggal gi waaw màggal sëñ Bamba gi moom xam nga ni jekk dem jekkul dem ñu may jeg-jegee may dem <laughs> ak ci borom daal kontaan na ak sa ak sa ak sa mhm. alhamdulilah yow euh, man moom xam nga gédé laay daal gédé ah waaw yaa nga gédé maa ngi gédé yii man na xam naa ne dinaa dem dina dem euh, ndindi dinaa dem euh, ndaamaatu yooyu yëpp dama fay dem usine xorom ba ah. yooyu dama fay dem mbaa doo tooy doo tooy eh, du ma tooy saret rek laa jël ay saret dañuy jël saret ba bu demee waaw dañuy jël saret yéeg wàcc yéegaat wàcc yéegaat wàcc yooyu yëpp waaw léegi nag ba daaru minam xam naa ne da ngay mujjee des ci kër gi ah da ngay mujjee des ci kër gi ndax koñ bi bi ma fi tuxoo yàggul te koñ bi dafa am insécurité ba pare man ak xale yi ñëpp ñooy ànd dem Touba kër gi yow kasee fi des waaye nag doon na mu màggal parce que frigo bi dinaa la ko duyal ba mu fees dina fi nekk boo xiifee nga toggal sa bopp ndox meeg tuumu gi doo manqué dara allez porte-toi bien ba ba ci kanam. kaay kaay nga ni porte-toi bien. pardon. nga ne porte-toi bien. oui. <laughs> mal nga war wax. Hmm. xam nga yéen nag booy <laughs> ku ci am xaalis day commencé fuuy. <laughs> avec màggal ji ci kër ngay màggale après frigo bi dara du des nga too barki borom daaru mi billahi barki xadim rasul ma yaakaar li may tey dem Tuubaa gisuma ko ah. ma dama bàyyi naa maagurug sëñ Bàmba gi bëgg maa tey dem kon kafoo ni waaye yow man tamit man mën naa la kaf mais yow màggal gi fu waay toog mën na ko fa màggale waa léegi d'accord yow doo toog fi màggale fii non man ak yow bokkuñu parce que man damaa am sëriñ ah, man awma sëriñ mais yaa ngi yéete yam <laughs> ah, waaw ba ngay dem. dem dem boobu ñu uh, Youssou de di way maa koy dem dem ndax lan bàyyi ko moom ngir espace yu lëndëm yi. Hmm. man Ila Touba direct barki borom daaru mi ne billahi wallahi la dama dem bar xaarul soo damay dem. waaw mais damay dem mais la daanu mais de toute façon mooy boo demee xamal ne amatoo fi place. Oh, waa ana place yi yow rek ngay joxe place man màggalu suñ Touba gii ma gënal sa fukki ñuy ne place. ah ba noonu. barki Xaadim Rasul rek. kon ba noonu. barki borom daal xajul su damay dem. mais de toute façon. li may tërë dem Touba gisuma ko bu dee sa simple liggéey bii tax na nga naan ma ay toogal gàdde kër gi ay frigo beeg frigidaire beeg ay xool man naba naa yee. ok man naba dunduma loolu man damay dem. t'inquiète. gis nga li booy naan liggéey laaj liggéey laaj. waaw mais de toute façon xamal ni soo demee bàyyi woo fi place. dégg nga waaye ya xam yaak sa place sama doole rek laa xam. c'est pas possible c'est possible kay si c'est possible Sénégal kenn mënu dimbali kenn yaa ngi ni amoo liggéey ma jël la ngay liguey après nga waga bon bu nga ko feñ na ni fang safar demo fi xey dik weer wa feñ na ni fang safar de mo fi xey dik wer wa feñ na ni fang safar de mo fi xey dik wer bamba la kon kuy muurit dugal jël bu ñëk jël bu ñëk jël bu ñëk jël bu ñëk Wah, ya ni jalan kau deh. nga daan fanaan tey nga teel a waay lu xew mbaa jàmm la yaay yow laay waxal da nga bañ maa faale ma ni loo xewle ba teel ñëw ma gis sa bagage yeeg yëpp te yow heure bi daawoo ko ñëw da nga daan fanaan bu seen nga daan ñëw lu xew eh, utal man abal ma scot abal ma yow mbaa dangaa xooti xaalis bi kon da nga ko xotti noonu. dama ne demal nga abal ma Scott. li ñu daal boo xottee xaalis. mais Fatou li nga xam yow ci nga nag de ak sa tàngoor bi. Fatou del seedal mais loolu laajte Scott wala kolo jinax. yow génnal ci man kolo jinax boo ko yow miy kaña nga ko sa bopp génnal ci man utal ma Scott. moom laay ut. kole ci seen gémmiñ yi kole leen ci ba ngeen ni ngodd duma dem tuba du ngeen dem tuba kenn du fi dem tuba magal gi mom kenn du dem du ñu dem tuba ay ni jaay dama fa la ngeen nalaw de ngeen duñ dem tuba mané kenn du dem tuba du ñu dem tuba kenn du dem waxo deug waxuma deug man ki est bëggu ta dof la safar demoo fi xëy dikk weer wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy dikk weer wa feeñ na ni fang safar demoo fi xëy dikk weeru bamba la kon kuy muurit jugal jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk jël bu njëkk avion otoraay car saret ñu ngay daw di dikk ndax 18 safar waa ji ko tardee kii rëkk